maye nga dara. Sidi ma ñu war a guddi fan rek geste bi dafa nice. man moom ku ma yëg rek ma yëg la sama niru tamaa moom démb la woon du tey. démb la woon démb. am na yoo ko faral sax di wax man. waaw waaye daje nañu mbapatu Birame Ndiaye mu war a bind ñu ne noonu du bindu. waaw ma ne ko buñ ci bu bu ñu woowee bëri tur siifal ma yokk la doole. xam nga dafa yàgg ak yeneen yeneen kon geste bi dafa nekk loo xam ne geste bu rafet la man heure bi ma woowee si geste bi nii damay teew ndax man aw dara lu banlieue dali fara jóge tuxu buun du ma remercier kenn du waa buun ndax fara dëkk ara yaawu jàll sant yàlla kon Siteu bu bu defee lii ma dama koy rafetlu di ñaan yàlla nag nag état Sénégal jàppale mu jàppale ko mm. xam nga jàppale moo la si mm. Siteu mbooloo moo topp si ginnaawam daanaka jàmm gën jàpp fora buun yëmbal mm. heure bu jógee ñëppay jóg mm-hmm. kon am na loo xam amee nañ ko siy jàppale muy lan mbër la. Hmm. Sénégal yëpp xam nañ ko yaa ma dégg bu bu bu defee rek si def dara muy lan ne wutal gars yi maanaam job comme loolu loolu loolu muy wax. Hmm. équation la quoi xam la si da

millions ñoo ko def te defuñu ko man dama gëm sama bopp moom xam na loolu am na mbir yoo xam ne lu Siteu def lu ñu war def mais defuñu loolu loolu moo ko joolee mu toll moo tax léeg buy wax da ngay yàq dafa contre état wala dafa iñaan état fekk demewul noonu mhm. maanaam bu mu noonu bu dee yor yor ay minti milliards kon ku fëgg këram mën naa nekk benn junni jox waaw ah, bi yàgg xaalis ba jeex mais nag tey bu nekkee da am foo xam ne dafay jàpp weer bu dee mu am benn cent franc benn deux cent franc kon sant yàlla la mm. kon fu mu ne semence bi dina wàññeeku jafe-jafe yi wàññeeku gàllankoor yi wàññeeku ndok la moo tax mënu maa faale benn mbir bu lekk cinq millions ma teral gannaaw yàlla di sant ñoom Sénégal yëpp di remercier nag lii daa mën daal lii daa xam lii <laughs> yaaw daa nelaw waaye sanguwul de